jirgin mai a transit ko a dan yi hoɗa hiran ba a shi Haydara am nga ay gan waaye ñàkk loo reer boo doon rëbbi tamit ñee nga ñee nga indi fii doomi sëñ Abdou Karim doomi eh, eh, sëñ Abdoulaye eh, sëñ sëñ Sëriñ Fallu doomi Sëriñ Touba. diggante sa papa ak Sëriñ Fallu ak Sëriñ Touba kenn rek moo ci dox. nga ñëw ànd ak Cheikh Joleer mi nga xam ne bi moom mooy Jolof. waaw léegi

oyin bu setee nañ ànd dem tey ànd bii kam si jàng ba di ngara nabaami ñaata alaaj Ousmane Niang lépp alaaj Ousmane Niang mii mi de kooku sëtu yonent ba man maa ngi dem seeti ko fii dëkk yonent bi demin defaarede haa min ngay min tawma otele demin mbiɗe calat otele min tawi haɗa jogii baraade haɗa jogii kasuuji haɗa yaltaana saro yimɓe heɓe njara ƴeew tan jogoode kaalis jogoode haɗa soodana yimɓe haɗa waɗa ko woni woni fof dañɗo probléme kala ndekla ƴettuɗa oto ñawɗo kala naɓa ñawna faddi jogiɗa barade kiinɗa naatɗa nder cuuɗi haɗa weɗɗoɗ kaas demin gettitati min mbi tel tan min kawte haɗa dam gañe ala usmane ñaami wimi liide moy ken musuko gis mbiɗum limoye amtananga pare nanu yilif la mbaɗol munut lowru mbaɗol wawa ɗum mbaɗol si ɓurduma kala sa yetti ma hollu yimɓe kam ɓurduma ɗum يعالجونها جود يعالجونها جود فإن ما كان في السيرك الفوق التوقيت يعالجونها جود يعالجونها جود يعالجونها جود من بيتي من فين من نتم يا ون يا سن يا سمام يا أديب يا حياء يا نظير يا بالكفر والشرك يعلن سن بامبلنا سمام نصيح بلا غش alimun muallimun saxiyun bilaa man nin kalaaman yu nay yunu sëriñ bamba nee na samaam nubuwatuhu xablal baraya xadin jaat lahu sabtu xiina jaddu tuddiini yaxdanu te ko dumu samaam sayyidina muhammad moo génn ci cent vingt quatre mille prophètes sa maam Seydina Mohamed moo génn ci trois cent treize yi nga xamante ne yàllaa lañu yónni jox nañ téere sa maam Serigne Seydina Mohamed moo génn ci vingt cinq yi nga xam ne ñooy ulul azmi ñu laaj Serigne Bamba maamu Cheikh Abdoul Karim ñeen vingt cinq yooyu ñan lañ mu ne yallaahu bil Moustapha sindi yallaahu wa bi xalifatika Ibrahima yallaahu wa bi kalimika Moussa Salihin qadri وبشعيب وإسماعيل الله وبسليمان نوح يونس يسع وزكريا يحيى هود الله هارون يوسف إلياس آدم داود ذكر بن عيسى لوط الله كان سانك يوي نو بنتي أدنى يلا تقولون تعول تي القرآن يقولوا العدل يالا جن سي جوم يي گن سامام سيدنا محمد گن موتاك شيخ سرات ابن عباس خو سامام ني والله ما في المصطفى غيب يرى لكنه خير الورى اصل الورى سامام سيدنا محمد موي اصل الخديبي الزج العاجبين انقل المنك بين بارق الجبين سبل الذراعين شق نور كفي سامام سيدنا محمد قامته بين القامتين اذا قام مع الناس امه بقياس واذا مشى كانه مظلل بين القمامين yàlla ne ko defal lu la neex ëllëg ma jox la kaa bi àjjana ak drapeau sant yàlla ana awluna sikrujan isa bu'istu samaam sayyidina muhammad wa qaiduhum isa wafadu samaam sayyidina muhammad wa yubashiruhum isa yaisu samaam sayyidina muhammad bi yadi yumna mafatihul janna wa bi yadi yusra liwaa'ul hamdi wa fil wara alfan min al malaa'ika ka annahu lu'lu'un maknun seen maam sayyidina muhammad وتشكرا ودعت غير هاشمي ودينه من لم يودع غيره فمودع طلعت نجوم السعد عند طلوعه وبه نجوم السعد تكمن تطلع وعظمى شفاعته لنا وبجاهه نلنا الشفاعة في الأنام فنجمع يوم القيامة سيدنا محمد كم رمبو غفت ولسوف يعطيك ربك فترضى وصدق يلا يلا فايدة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين. سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ورضي الله عن قد رباني وغوث السمداني شيخنا وإمامنا ووسيلتنا إلى ربنا شيخ سعد سعدة قومي سيدنا سعد الصعود سعد من مولانا أو سعد أبيه سعد من تعلق بجيده وفوزه تحقق أو سعد أبيه جده خير الورى ودمه من دمه بلا انتراء أو سعد أبيه وسعد أمة النبي وسعد من أحب دون ريمه mbokk yi asalaamualeykum ñu ngi nuyu ñëpp ci turu ñu tedd ñuy toog imam Shafi dane woon bu leen leen dendale kenn ala taadil li ahlil beyti xolqan ahlil beyti hum ahlu siyaada di jiital ci noo bi cheikh yi duumu doomu cheikh Hadrami doomu cheikh na cheikh Dahi doomu cheikh Hadrami دوم الشيخ مصباح الدين دوم الشيخ محمد بادر نيو نيو شيخ محمد العزف دوم الشيخ الشيخ ابداتي دوم الشيخ مصباح الدين دوم الشيخ محمد بادر نيو سونو ويدور بي نو داجال في موي سونو بابا شيخ الحضرامي دوم الشيخ سيدي بويه دوم الشيخ منات الله دوم الشيخ يربانا دوم الشيخ محمد بادر دي دوم سخنا امينه تومي شيخي تومو دوم شيخنا شيخ عبداتي دوم شيخنا محمد باقر شيخ يدوم شيخ عبداتي شيخ مصباح الدين شيخنا محمد باقر نيو سون بابا شيخ شيباني دارال نيو كيرغي ييب تي نيوم دارال نيو كيرغي ييب تي نيوم دارال نيو غانيو تيد يي كيرغي ام نجيتال شيخ محمد تقي الله دوم شيخ جي دوم شيخ محمد بادل دوم شيخ الحضرامي دوم شيخ محمد تقي الله دوم شيخنا محمد بادل nuyu cheikh ili cheikh doomu cheikh al Qutub doomu cheikh al Walid di sëb cheikh Mouhamed Taqiyullah as Suufi cheikh cheikh Mouhamed Fadil ak ñoo ngi nuyu ñi mu àndal cheikh al Hasan doomu cheikh Abdullah doomu cheikh Oumar doomu cheikh Mahfoud doomu cheikh Abba doomu cheikh Mouhamed Fadil ñoo ngi nuyu Cheikh Mouhamed Mal Ayni doomu Cheikh Mouhamed Badou doomu Cheikh Mal Ayni doomu soxna Koul Fadli nee na ñun nag Cheikh na nee na ñun nag ba ñu tudd li ñu jublu woon ci nuyoo bi rek mooy wax ne délégation bi jógee ci kër Cheikh Abdoul Karim délégation bi jógee kër Cheikh Abdoul Karim Mbacké ibnu Cheikh Mouhamed Fadel ibnu Serigne Touba Khadimou Rasoul ñëw ci kër Seydina Mouhamad ci njiital Serigne Cheikh Oumy. déedéet Serigne Cheikh Dioré. Serigne lenn rek lenn rek lenn rek la ñu bëgg a fàttali. Cheikh Ibrahima mu tudd suñu xel yi dafa dem di Cheikh na Cheikh Sall bu demee Njaareem ci Serigne Touba. Cheikh Ibrahima mooy tudd. yéen Cheikh Mouhamed Fadel mooy sëñ Fallou mooy Cheikh Pa mooy Cheikh Mouhamadou Fadel mi ma tudd léegi doomu Cheikhul Khadim nañu rendi gàtt bi suñu xel dem na ci ana ana kii defar gàtt bi na ko defar suñu xel dem na ci maa naa la fadlan Cheikh Quran moo ne woon maa naa la fadlan ka fadlina walaw fudala من مادن غيرنا بل إننا فضلا إنا بنو فاضل لا نبتغي بدلا به ولا يبتغي كلا منا بدلا تري فل جد فل تري جد بنت ديش محمد بعد الفخيلي بدل ونو شيخ نشستان بيونيو شريخ قال أبو عبد أزيز السعد أبيه لله تعالى الحمد تاريخ شيخنا أبو المامون ون الأمين الزلعلى مامين كلا mooy xawsul wara min batti ummihil bara wax naa la léegi ñoom bi nu dikkee suñu xel dafa dem Mouhamad ci bi Serigne Touba demee jëf gisee Cheikh na Cheikh Saad lan moo sabab gise ba Cheikh na Cheikh Saad bu moo fekk Serigne Touba Ndiaye ànd ak Cheikh Alioune Seck doomu Cheikh de Thiaw wax naa keroog lu rëy moo xew bi bi bi Cheikh Mahfou doomu Cheikh na Cheikh Saad bu Cheikh na Cheikh Saad bu di ko yónni njaareel ci Serigne Touba muy jéggi dex gi la yonent bi la yonent bi ne Cheikh al Mahfouz yëgal Serigne Touba ne yëg ne. maa ngi ñëw ci moom kon Seydina Mouhamad mooy ñëw ci Serigne Touba waaw fi ma nekk baax na fi ma nekk baax na ndax xew-xew bu rëy fa xew ah Cheikh na Cheikh Sarr yónni Cheikh al Mahfoum Cheikh Mahfoum wax kër yi dina def Thank you. مريم ما يكون ديني بمشي احمد شريف أدراك أدراك بدي إنه هذا وقت ما جاب جن ما يمرك تيجي نعمل ما يزال شنو خايف لك يبقى di sant yàlla bu baax a baax di jël seen naam ma sant ah bi yàlla defee ma ñëw fii ma toog fekk Abdoulaye Moussa Diouf Guèye doomam ñu koy tudd kan moo koy tudd doomu sëñ Abdou Karim Mbacke di sëñ Fallou Mbacke sama doomam sama mag bee di sama xarit Abdoulaye Bamba ñëw def seede baax na su ma toog ma def seede ndaxte Mouhamadou Fadilou Mbacke. du ko sama papa doon seet seet sax papa seet sax. ayza bii dafa doon fekk. ayza ñu bokk benn lal. ñu ne ko sëñ bi dama nga ñaanal ma ma siiw aji Makka. sëñ Fall jël loxoom teg ko maam ay Mbacke mooy yaayam maam ay Mbacke moom seen soxna jëlal bii ñoo bokk seen secteur ci koor gi rek moom ñu ne ne

ñii fi toog nag surafaa yi toog fii nii muy addaalu sudi buy ñoom seybaani mag ñoom ñu ànd foondoo màggandoo ba ñu maa juma ba ñu tabax jumaat euh, ndogono bi ñu def ko fondement en 1967 ñoo ne yéen biri Cheikh Yar di wax jazakum laa xayra maa ngi sant yàlla bu baax a baax bi ma ñëwee fekk waa kër Sëñ Touba ci kër addaalu sudi buy neex na ma trop parce que nit ku baax la nit ku woyof la ku am diinal ku ku am yëg-yëg la seybaani ñoom ñu fi nekk ñëpp du dox yi mag ñi doon dox ñoom Cheikh Abdoulaye du ko ànd ak ñoom euh, euh, seen Cheikh Gaynde Fatma ko loolu lañ def ba su ma tëful témoignage nag day mel ne loolu ak coxal la parce que waru moo wax parce que Abdoulaye Bamba dafay toog mooy suma xalifa waa Touba yëpp la xam waa soxna Bali seen mun taxaa xaritam benn bakkan bu toogee war ma wax waaye comme seen Cheikh toog na seen Xaadim ñoom toog seen Oumy toog seede la seen Abdou Karim soxna mu buum man loolu na defal ngir yàlla sax seen ji bu sëñ Modou loolu laa lay seedal Iram la ma yóbbu nit ñi mu ne may naa la terrain ma seedal loolu sëñ Diouf tey Modou sax loolu Amady waaw loolu loolu loolu Amady wax ci loolu rek la ñuy seede tuuti. bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana وعلى آله وأصحابه سوير الدوال والتمكين أما بعد فأيها الصرفاء الأجلاء نهنئكم لهذا اليوم المبارك ونهنئكم لهذا الشهر المبارك ونهنئكم لهذا الولد الذي رزقنا من قبل أزلا ونسلم على حضراتكم الجميل ونحن نقدم إليكم كلمات وجيسة لهذه المهمة الجليلة والوفد الذي أتى إليكم من هندي متركبا من أبناء وأبناء أعمام ومن بينهم طلاب الوفد الذي يترأسه سري الشيخ جوريل أم سري الشيخ كرو بكر إذنا من الشيخ الجليل شيخ عبد الكريم بكر فاضل لحضور بهذه الحقيقة التي كتب كتبها الله تبارك وتعالى من بين عبدين سرين مود مباكي ابن الشيخ محمد عبد الكريم ابن الشيخ محمد الفاضل وبنت لهذا الشيخ الجليل كون نيغي di lool ci teew gi nga xam ne teew nañ ko fii ci ndigalul Cheikh Abdoul Karim Mbacké Fadil waaye nag kàddu gi lépp Serigne Cheikh Jorel ci loxoom la ne ndax niñ ko xamee ñun ñëpp rek inna rasula bi xadril mursili kon Cheikh Abdoul Karim Mbacké Fadil moo fi toog te moom dafa baaxoo nee na gox bu ne ka fa ne bu ko mët bu ko mëttul du ko fa teg mag gum ko mag te nee na yéen ñi nga xam ne yéen a nekk fii ci ndogonu saatu da war boppam rek na ko noonu ngeen wax seen bopp tey ndax li mu yaakaar ci moom rek lépp lu ngi ci yéen waaye nag ngir mu gën a kulóoru faw mu yebal ko moom mii ndax gox bii Mbàkke Baari ngi nii Mbàkke Baari ñëpp maasa nañ xam ni fa la Sëriñ woon daje ji ak tubaab bi ci lu jeewal ndax bindal na ko boppam xarajtu yow ma sabti saa mina li xidmatil muxtaari fii safari safar def nag man bam ba mu ba ci ba ci baagante yëpp diggante Mauritanie njaareem lépp bisu bu te yéen ni ma gisee wujjoo ëkku mu nayra ci laa xamee ne xam ngeen ne yow mu sabti lu doy waar ndax yow mu sabti ci la yàlla ak alak bannoo israil ndax ñàkk koo sant muy istaatihim xeytaanuhum yowma sabtihim surraaw wa yowma laa yasbituun laa taatihim kon wane na ni sëñ bu jële gaaw delloowaat place am gaaw dafa delloowaat sant bi place am ndax yàlla bëgg ñu di ko ci sant li imaamul Buseyri wax rek ni bannoo Israël bu leen yàlla nammuloon ci gaawu aw yiw kon gaawu moom àllarba yem ci ñoom waaye bokkul kon su nekkee fii waa waajuram ñu rafaatale ko barab bu sell boobu mu di ko dundal ba ñépp di wax Mbàkke Bari moom it mu ne fa ak mbokk war a taxal sëñ bi yebal ko fi ak taalibe war tax sëñ bi yebal ko fi doon bennoo ak nekk nekkin wu rafet war tax sëñ bi yebal ko fi kon yebal ku sëñ yebal jihaad yëpp bu ñu ko xoolee day mën a teewal fii sëñ bi loolu nag sëriñ bi wax na ne yéen ñii nga xam ne yéen a fi nekk it mënoon ngeen ko fee teewal waaye daa bëgg rek ñaari famille yu jaxasoo te wax ji it kat mënut a génn dé diggante Cheikh Saadu Aboohu ak Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moom moo ko njëkk a ndokkeel bisam bi ñu bisee moom moo waxal boppam ni maa ngi ndokkeel sëriñ bi ci dellu si gii nga xam ne dellu si waat na ko ci suñuy loxo ndax moom gisoon na ko xamoon na sëriñ dina dem dina dellu si moo tax mu ne maadinuhu ajjilathu min xan nasaara fa asbaha fi tilkal buhuri nudaara كهجبي بكيمي امتحان قضى بها ندار الورى يا قوتة الله لا تبارك مدم بتبي من هنيئا لسدين الغريب غدا يتي سرورا منكم وافتقارا دال لسن بي نيو جي مو نيبسي وات ماغي لين دي خمال لسن بي مبل لا وون mu ne ci biir suuf waaye bi ko tubaab yi yëg yóbboo lañ sulli mbenn mbell bi suñ ko bàyyee woon rek dañuy romb rek ñu naan kii di suumu di dem kii di suumu di dem rek ba ko yóbbu ba mbell mi doon ko sullee ci suuf bu génn ko duñ mu daal sama li may yéem mooy mbuut mbuut mi ko yàlla nattoo ba mujj sëñ bi mel ni wursu nu daara ci kaw ñëpp ñëpp di ko gis muy wurus woo xam ne moo dàq ci wurus yi Cheikh Saadu ab wii ne na sëñ bu génn noonu mel daal ne maa ngi ndokkeel diine mi nga xam daa tumuranke woon fi ne diine ngi yëkkati ay mbaggam ngir bég Sëriñ Tuubaa ak di ci dam mu dem ba mu yàgg mu ne fayaa ajaba baabul mata bi mu fattaxul li kulli muri mu raama bi bu jiwaara daal ne buntu tuub yàlla ubbi na ko ku tuub ñu jégal la ndax Sëriñ bi moo demee noonu kon suñ demee nag ba nga xam ne ñun ñëpp teew nañu fi ngir sëriñ bi yewul ñu sëñ Moodu Mbàkke yàlla dogal ci ëllëg ruu yoo gis ñu bind leen war a ànd yàlla dogal la yàlla dogal mu war a ànd seen doom ji ba yàlla wane ci njaboot bi ni mu wane sëñ bi jël nit ñi mu yebal fonk leen ñu ay nit ñu ko mate ci wetam ndax ci biir loolu sëñ seen um moom du ma la ko far sant yaa wax ne moom la sëñ bi yebaloon moo ñaan ci woon kii ci sa wet Serigne Mbacke Niang bin ibnu ibnu est Cheikh muy sam bintu bin bu Sering Serigne Fallou mi moy magam ñu bokku benn waji Serigne Khadim mi ñu bokku benn waji kon Serigne mi Serigne Cheikh sàkkal muy way moom kon daal dañoo ñëw ngir teewal si sëriñ bi ngir yokk si taar waaye taaral si wuñu ndax bi ñëwee ci baas bi rek xam nañ ne taar na ndax asbaatu Cheikh Saadu Abou bu ñu teewee ci barab barab boobu bu sëñ Tuubaa doon yebale mën na leen yebal képp képp waaye nag njabootu sëñ Tuubaa jaxu sëñ njabootu Cheikh Saadu Abou daa am leneen lu mu jur kon léegi fi ñuy téye suñu kàddu rek mooy ñu ñaan yàlla mi nga xam ne moo nu indil gan sàmmal nu ko defal nu ko muy mag te seddal suñuy xol ñun ñëpp ci moom mooy ñu fekkee njariñam ñun ñëpp sëriñ bay ngeen toog gis ma toog mooy mooy ndijaayam la muy sëñ Sidi Ndaw boobu waajuroon na bopp lépp kon sëñ bi kàddu yi xam naa ne bu gàttee ci ñun la bu dëngee ci ñun la kon parce que li nga xam ne dañu dee sàmm yi xaw

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيد الأمين سيد المرسل سيدنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على سيد الأنوار وصدر الشرائع الشيخ دوري حضرة خليفتنا الشيخ الزهري بن هشام بن شيخ الحضراني بن هشام الشيخ الداتي بن هشام الشيخ الحضراني بن صباح الدين بن هشام محمد باقر وسليتنا على ربنا وعمنا وابينا وشيخنا الشيخ محمد الأعظم بن عبدات بن الشيخ صباح الدين بن الشيخ محمد فاضل بن ماني يوم يوم في تاو في تنفس ak sama rakk ci wàllu baay ak sama jarbaat ci wàllu ndey Chérif Cheybani ak Charles Hadran ñi toog man maa leen jiite ci mag tuuti nekk seen nijaay man ak seen waajur yi nga xam ne ñoo fi teewu tey suñuy yaay yi ñoo bokk benn baay ci wàllu génn tamit ci Cheikh Mouhamed Fadel ñu ñoo ci bokk yem kon nag sëñ Cheikh Ndiir mi nga xam ne. moom moo jiite délégation Moubarak bi am na firnde bu mag ci Jolof waxuma ba Bawol Bawol waxuma ko Jolof liggéey na fii liggéey bi nga xam ne moom la ko sëñ Tuubaa dénk xam nag gëdd gëni aadama xam lan mooy doomi aadama mu xam lan doomi aadama lan la tudd mu xam taalibe ban njëriñ nga am mu xam nag xëpp aal beyt rasul sallallahu alayhi wa sallam lool mu woon ñu ko nag te mu jafe fii ci Daaru Salaam ndogan Cheikh Al mu ngi fekk sëñ Touba ci leen mu daal ko seetlu daal di ko jox fas aaji bi muy indoon ci sëñ Touba sëñ Touba defal ko ko ba pare sëñ Touba mu ne ko sa mbubu bii nekk suuf sa yëpp mbubu laa mu ne ko nde ndegam loolu nag diggante Daaru Salaam Ndogandu ak Touba laay wax li ko Cheikh Hadrami daal di jox mbubu boobu mu ne kii mooy wàllu kii mooy parfo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu sëñ moo ko wax sëñ Touba. mu ne bu dee parfo yonent bi am na sañ Touba mooy parfo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. am na sababu. lu nekk am na sababu. maanaam comme jamono boobu lamb bu am valeur. Mm. sëñ Touba ci mm. yonent moom moo ko jox. Mm. ci ñu jóge ci loolu ñu jóge ci loolu sëñ Fallu boroom baax mi ak Cheikhna Cheikh Daay ñu bokk benn baay ñu bokk benn ndey fii gis nañ fii ñu am ñu ko fekkee ci màggal Touba mi ngi jib si Cheikhna day Daay daal di yëkkati juróom benn fas naar góor ak juróom benn gëlëm ak juróom benn nag مجوخنار بني واخ عبد المختار خينا دوم نيك في بير جاتاي اك بن سام جيلن دي بني واخ آه، شيخ ابراهيم مون نيولن نين يوبول مالي سي سيغ فالو نين دوخام نجاباتو شان شيخ داي داف دون بو فنانه توبا بو نيوي لومو غودي دون دون جيس سيغ بي مي امنا كير بي نين دالال بو بات سيتي سيغ بي سيغ سيغ فالو دال دي واخ بومو ايغ dugg gis li ko Cheikh Daaya yónnee mu ne Cheikh Daaya baax Cheikh Daaya baax Cheikh Daaya baax sëñ Fall yëkkati kàddu yooyu wax kon ñooñu lu ñu doon nos du du réer mukk keroog bi ñu ñëw di jaali fii sëñ Salim yàlla na yàlla taas ci barkeem may ko yërmande yàlla sëñ Baara yàlla na ko yàlla def ci jënatu virdu moo wax ci làmmiñam suñu kanam ñun ñëpp Landor oto bi ko Cheikh Cheikh Ndiaye suñu toll jox Cheikh Ndiaye man maa ko génne ci garage bi ñu jox ñu jox ko Cheikh Ndiaye kon Cheikh ñaari say doom yi nga def liggéey la jaasi la li nga xam ne sëñ Touba liggéeyam ci yàlla du réer day day pàkk rek lamp bi nga xam ne day jëm rek xubbam rasulullahi sallallahu alayhi wa dana tax na moom. mu am deretu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duñ ko may nii mi la tudd fadala fadila fadila wallahi fadila mun fadil mooy doomi xadraami mi toog doomi Cheikh Sidi Bouye doomi Cheikh وبعدين يا سلام كل الناس معلومه ولا تقولوا لنا لا شنو تقول شيء لا ما شوفوا انا واحد في حركه انا قرم انا قرم انا شيء ولا كنت انا شيء انا لا نقول انا لا نقول محمد غازي kon waa Kër Cheikh yëpp moo ne ñu ngi lay toog ñu ngi lay toog ba Dakar ñëpp gis nañ leen di indi dëgg la man maa ngi ci ñu ngi am seen Tuubaa dégg ñu ngi bokk seen yàlla yàlla liggéey sama ah dana liggéey noonu yooyu kon seytaan bi wax si dama bëggoon loolu génn ci sama génn ñi nga xamante ne maay waaj